Donc, tay vraiment, nous avons une journée nettoyage pour lancer sur nos campagnes, pour un euh, nettoyage Gédbi. Parce que vraiment, sur nous Gédbi, d'affaires Bartay, il n'y a qu'un affaire d'ailleurs, mais vraiment, actuellement, ça devient compliqué. Vraiment, le nous tout sous vraiment barina. Saleté bi barina, te faut nous dem de nankogis. faire. nous place, fumu amoul. Sur nous taille 50 km birget de nan fi donc Limotar nous tax ñu organiser journée bi pour essayer nettoyer l'île. campagne bi la campagne sur deux mois. Mhm. dinañ essayer nettoyer le maximum sur deux mois. Mhm. ensuite dinañ ralentir cadence mais ça va durer toute l'année. Notre objectif moi, 30 à 40 tonnes si année bi. Mhm. D'accord. Lolo, loolu euh, mbalit mi ci géej On a indiqué euh, ci ci dina que période faut nous voir à am ay pollution bi day wàññeeku du nu amee doom wala c'est comme tortue par exemple avant d'aller à ay tortue actuellement amatuñ lu tard, parce que dañuy lekk ay mbuus dañuy donc nettoyage bi nous mun indi reproduction donc suñu defulee nettoyage jën bi dina manqué fii ak suba jën bi dina manqué. kon jàpp ngeen ni campagne bi du am important campagne bi vraiment waruñu bien sûr daa am importance parce que tey géej bi su salté suñu géej bi la jën bi si biir lay dund jën bu ñuy lekk day lekk salté bon lii kenn bugg ko donc euh, waaw vraiment am na importance tey. d'accord léegi ban kàddu ngay sànni pêcheurs ak askan wi par rapport ak géej bi nous mu tilimee. nan xalaat géej bi nan xalaat géej bi moomuñu ko suñu doom ñoo ko moom. donc il faut nous nettoyer ko. il faut nous faire attention nous nu sànni si il faut nu xalaat surpêche il faut nous faire attention si lii donc euh, nan continuer d'avance parce que ñu ngi la taille, nan continuer mais Nous euh, ñun ci les génnee parce que ñun euh, ñun ñoo nekkoon fii nii ci kii bi ci ci kii bi ci taatu qui bi tefes bi mais liñ génné normalement warna naa mën a ay 200 kilos yoy non ci ay lo xamante li la ko moo ko composé muy ay yéré ay canette ay bouteilles yoy non. ñun ñoo ngi nekkoon environ ay dix plongeurs yooyu noonu ñoo nekkoon ci wetu kii bi tefes gi noonu. way lii dañ koy faral di def très souvent parce que même bii mooy suñu ñaareel fii ni bi fi nekkee ba léegi. et mais à part bii ni tamit defoon nañ boo xamante ne amoon nañ ci une semaine boo xamante ne semaine de nettoyage lañ ko tuddee woon. ñu nga ko defee woon diggante Caaroy ak euh, euh, Mbaaw ak aussi aan euh, fii Euh, lii nii soo xoolee liñ génnee fii nii euh, nga xamante ne lii échantillon la rek échantillonnage la kese rek loo xamante dañ ko génne nii pour won ko population bi parce que lii lu neew la ci donc ñoom war nañoo wax gën a góorgóorlu xam ne vraiment euh, géej gi du du du poubelle du mbalit du fu ñu war a sànni mbalit waa lii nii suñ ci jógut vraiment mën nañoo indil ay jàll yu bëree bëri parce que tamit comme nit jën tamit noonu la nit dafa bëgg bëgg nekk foo xam ne day set jën gi tamit noonu la demee dafa bëgg foo xam tamit day set jën bi su demee ba fu mu war nekk nekk mbalit kese day obligé day jóge foofu noonu dem foo xamante ne day gën sori te ko defee tamit loolu ñun dañ koy yëg parce que suñu nappkat yi suñ waroon a yem fii nii mën a am ay jën dañuy obligé dañuy dem fu sori pour euh, mën a fekk si jën boobu noonu jën bi mën naa dem bu day déplacé complètement mën ngaa waa mbalit mi ni bokk na ci lu gën a am solo ci loo xamante ne daf ñuy andil ay gàllankoor ci côté am jën mbalit mi bii nii bokk na ci lu vraiment. et tamit ci mbalit boobu noonu comme euh, ni ngeen ko gisee tamit euh, muy euh, mbaal yi nii mbaal yooyu tamit vraiment tamit bokk nañ ci loo xam ne vraiment day indi ay gàllankoor parce que jën gi day ñëw da ciy càng da ciy lonk te loolu tamit nekk na loo xamante ne vraiment. même su fekkee ne jën boobu noonu duñ ci jiiranoo sax da koy jàpp mu mujjee dee foofu noonu nëb noonu loolu yëpp ay la. waaw ñun même ñun ñii nii man mii di wax ak yéen ci lañ nekk parce que ñun dañu am lu programme de mise en valeur des fonds marins mu nekk loo xamante ne direction de la gestion et l'exploitation des fonds marins moom may ko mettre en en œuvre nga xamante ne ay projet yu bëri la ne bokk na ci boo maintenir ne cartographie des fonds marins moom nga xam lépp loo maintenir ne moo nekk ci suufu géej gi ah, ba par boobu noonu am na boo xamante ne moom nettoyage des fonds marins ak euh, boo xamante ne euh, fabrication immersion des récifs la boo xamante ne maanaam soo nettoyé ba pare da ngay defal jën foo xam ne ay déco ci biir géej part boobu noonu tamit am na projet boo xam ne pour euh, expérimentation ay algues la yoo xamante ne peut-être mën naa yéen ay indi ay yeneen kii ay buntu